dellu si tey ci suñu barkeelu ci sunna si Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ci koor ci saxiihul Buxaari ci kitaabu sawm tey ñu ñëw ci baabu ajwadu ma kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yakunu fi ramadan maanaam lii bunt la boo xam ne fay wax ne yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni muy tabe tabe yëpp ci weer koor la daan tabe mu ne xaddadanaa Moussa bnu Ismail xaddadanaa Ibrahim bun Saadin axbaranaa ibnu Shihabin an Ubaydillahi bun Abdillahi bun Utbata an ibni Abbasin radiyallahu anhuma qaal كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن fa ida laqiyahu jibrilu alayhi salaam kaana ajwada bil xayri min arriix al mursalati mu ne jëlee nañ ci euh, Ubaydullahi ibnu Abdullahi ibnu Utbata mu ne Ibn Abbas muy Abdullahi Ibn Abbas radiyallahu anhuma wax na ne yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo gënoon a tabe nit ñëpp mu ne fi mu daan gën a tabee nag moom mooy ci weeru koor ci jamono bi nga xam ne mu ngi dajee Jibril ndax jibril alayhi salaam dafa daan dajeeg yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci guddeeg weeru koor bu nekk mu koy gàral alquran moom yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam di tere alquran ci jibril mu ne sallallahu alayhi wa sallam bu dajee jibril maanaam jamono boobu mu moom mu ne kaana ajwada naasi waaw ajwada bil xayri min arriix al mursalati maanaam ci jamono boobu nga xam ne ci koor gi mu ngi dajee jibril mu ne yonent alayhi wa moo gën a tabe mu melal tabe gi mu ne moo gën a tabe tey boo gisee mu xiin ba xam ne taw baa ngi war a wàcc ngelaw loolu nga xam ne mooy puus taw bi nga xam ne moom mooy rijji taw bi ba taw bi wàcc xam nga ngelaw loolu ni mu barkee ak ni mu tabee ndax taw su ndox wàccee li ci génn ci xéwal ci suuf si ak li muy mën a àgg xam nga ay teraanga yoo xam ne kenn mënu koo natt ci tabe mu ne nag yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo gën a tabe ngelaw loolu nga xam ne moo ñuy jox ndox mi mooy rijji ndox euh, xiirin yi ba taw bi mën a wàcc suuf si mën a dund ak li ci génn ci ay gàncax yëpp li muy bari bëri li muy barke yëpp li muy tabe tabe yëpp mu ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo gën a tabee loolu nga xam ne moom mooy ngelaw loolu nga xam ne mooy wàccee taw bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ci wax wax daf ñëw wax ci alquran ne euh, taggu ko ne ko euh, wa innaka la ala xuluqin azim xam nga jikko ju mag jikko ju kawe xam ne bu fekkoon ne jikko yu kawe euh, façon naaru goor la yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ne kaw loolu nag li muy rek mooy yontu bi ci lépp moom moo ci mën ñëpp maanaam mooy ki nga xam ne moo gën a mat ci bindee fi bindee yàlla yi moo ci gën a tedd moo gën a tabe ñëpp comme ni nga xamee ne moo gën ñëpp comme ni nga xamee ne moo gën a am xam ñëpp ni nga xamee ne moo gën a ñemee ñëpp ni nga xamee ne moo gën a mat ñëpp ci mbooleem melo yi nga xam ne melo yu tedd la sallallahu alayhi wasallam moom tabeem amutoon ci tabe rek ci alal waaye tabeem ci xam-xam tabeem ci joxe sax bakkanam ci feeñal diina yàlla ji waaye jubal jaami yàlla yi waaye fexe ba xam ne njëriñ dafay àgg ci mbooleem jaami yàlla yi ñi nga xam ne dañoo xiif mu fexe leen leen ñi nga xam ne dañoo réer mu waar leen ñi nga xam ne dañoo am soxla mu faj seen soxla waaye ñi nga xam ne sax dañoo bëgg a yenu dara te attanuñ ko maanaam ci ay ay problème yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf leen di enul seen problème mu sa nag mel noonu moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon day gis ne taweem tabe gim tabe loolu naturel la xam nga yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa moom mooy xalifatullahi fil ardi wala moom mooy xalifatullahi ci mboolem mbindeef yàlla yi sax te yàlla tabe na lool waaye ci weeru koor lay gën a tabe dem maa ngi wax ci suñu darsi bi ne xam nañ ne yàlla ku tabe la waaye xolool weeru koor ni mu ko xaajee daf ko ñetti xaaj ne bii mooy sama yërmaane bii mooy sama njëggal bii mooy sama goreel jaam yi ci safara pare nag indi ñu guddi ne wax nañu ne guddi gi xayru min alfi shahrin moo gën junne junne weer xam nga kon ci weeru koor la yàlla gën a tabe ndegam yàlla na ci weeru koor la gën a tabe te yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy xalifaam amul benn sikki di yontu yàlla Muhammad moom it weeru koor si lay gën a tabe ak li muy tabe tabe yëpp te euh, nettali nañ ne yu moom ki nga xam ne mooy Anas nga xam ne moo ne ma bëkk néegam nettali ne yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo gën a rafet ci nit ñëpp moo gën a woon ñemee ñëpp waaye tim moo gën a woon tabe moo gën a a woon tabe ñëpp xam nga bu fekkee ne dañoo jàng xadis bii ne yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku tabe woon la waaye ci weeru koor léegi gën a tabe waaw ndax dafay doy rek ñu am rek ci ne yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku tabe woon la waaye dañuy jàng ne lan lañ mën a jëlee ci xadis bii nga xam ne jàng nañ ko maanaam ne yontu bi sallallahu ku tabe woon la xadis bii nga xam ne mu gën a tabe dafa gën a tabe ci weeru lan lañ ci mën a jàngat dañu ci mën a jàng ne war nañoo góorgóorlu kon ñun di tawee ci waxtu wu nekk ñun jullit ñi ba ci topp war nañoo góorgóorlu ci weeru koor ñi ngi dajee dajee dajee ci lan dajee ci lu baax xam nga tey bu ñu gisee tey fii ci Madina ci subaar Cheikh Imam al Akbar Seydi Ahmad Tidiane ma nga fële di jàngale xam-xam ca jumaa ja war nañoo góorgóorlu ñëpp ñu ànd ak moom dajee foofu noonu jël xam-xam tàkkusaan al Khalifa Mawlaay Cheikh Mahamadul Maahi ma nga fële ci bayaal bi di joxe xam-xam maanaam yu mel noonu lañ ko war a bëril ci weeru koor ndax boo gisee yoon yàlla Muhammad weeru koor lay dajee loolu li muy firi moom mooy ne ñu nit nañ góorgóorlu ci weeru koor daje borom xam-xam yi di jël ci ñoom xam-xam ñett ba ca topp moom mooy nañ bëri lu ñu jàng alquran ci weeru koor ndax yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci xadis bi mooy ne moom a jibril buñ dajee alquran la ñu jàng kon mooy ne ñu jullit ñi war nañ cee jàng alquran bu baax a baax ci weeru koor waaye war nañ ci tamit di ci sàkku xam-xam di jàng di jàngale comme ni ñu war a jëlee dars bi tey xadis fële ci jumaa ja ak di ko jëlee fii ci alquran ci Mawlaay Xalifa Cheikh euh, Mouhamadul Mahi yii daal ay point la yoo xam ne ñun ñëpp war nañoo góorgóorlu jëlee ko ci xadis bii nii weeru koor tabe lool loo tabe woon nga gën a yokku tabe gi ndax yàlla kat boo tabee ci jaamam bi rek mu tabee ci yow tamam buy fay mu ngi fayee ci li nga def moom si lay fayee aljazaau min jinsil amal li li nga def jëf ji si lay fay di di jugee nañ dajee borom xam-xam itam jël ci ñoom xam-xam nañ ko góorlu tamit jàng alquran yi daal dëgg-dëgg ay points yoo xam ne mën nañ koo tiré ci xadis bi nga xam ne tey jël nañ ko tey ci yóbbalu suñu yóbbalu tey ci koor gi ñaan yàlla lépp loo xam ne eh, dajee na ca sawab yàlla na ko yàlla nangu te fulal ñu ko te boole ñu ñëpp daje ay njumte yàlla ñu ko yàlla jéggal yàlla rek mooy aji xam ca dëgg-dëgg yàlla xam yàlla nañu yàlla xamal allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman